yàlla amul sentiment amul émotion. amul émi léeg-léeg amul sentiment amul sentiment amul émotion. ok muy raafa kii sama mbokk la wala sama nijaay la wala xaaral sama jarbaat la yàlla mu ne yooyu bu mu ci am. gis nga li nga xam ne mooy àtte ak loi. warul am émotion imam warul am warul am muhabbat maanaam féetee côté bi wala féetee côté bële wala kii nijaayam la wala xam naa kook am na xaalis ak am na daraja amul ci àtte. wala am parparloo amul parparloo. ok moo tax yàlla ne wala yaqusukum bihima rafatun ñoom ñaar bu leen ci am ñewent ci àtte boobu lan la ci teg mhm. nee na fi diinillaahi in kuntum in kuntum tuminuuna billaahi wa yawmil axir diina yàlla ji warul am ñewent bu fekkee ne gëm ngeen yàlla gëm yowmal xiyam mhm. lii la yàlla wax lii mooy charia appliqué woon maanaam appliqué leen ko appliqué leen ko yonent wax na ko mos nay wax ne euh, banni israil xëy du njëkk yàlla taxoon yàlla alagal alag leen mooy su borom daraja sàccee. Mhm. dañ koy mëpp mëppal mëf mëfal. ok su baa doolo sàccee ñu dagg loxo ba. Mhm. yónneent bi ne maa ngi géej ne Fatimatu bintu Rasul bu sàccoon mooy doon ki ñuy njëkk dagg loxoom ci lislaam wax loolu kenn du waaw wax loolu. propre doomam propre doomam. su jalgati woon muy Fatima moom la ñuy njëkk dagg loxoom ci lislaam kon xam nga ku mel ni doomu yónneent yi imam mu ne sama doom bu sàccoon moom lay njëkk dagg loxoom wax ko xeet bi yëpp ñu gis ko. yonent bi ne bu borom daraja sàccee wala doomu daraja sàccee ñu lijjanti dossier bi. ok jël bi dugal ci tiroir yi négocier wu. su doomu baa daalu sa sàccee ñu tëj ko 10 ans imaam yonent bi neen loolu dafay toroxal aw xet day tax yàlla di wàcce ay sanction dafay tax yàlla di toroxal ay xet. maanaam ñi néew doole ñi leen di mbugal. ñu leen di mbugal ñi am daraja am tur ñu bàyyee leen fële ku ci sàcc wala nga def na nga ñu négocier ko. mais imaam loolu moo xam Sénégal. mais beneen affaire la yaa imaam. boo amul wala nga am xaalis wala nga am tur. imaam fii boo amul xaalis amoo tur ba yow mooy tur. déedéet maa la ko wax sa dossier kenn du ko laal. duñ ko lijjanti lu leer laa wax. duñ ko lijjanti. loolu nag la yonent bi wax ne bu Fatimatu bintu Rasul sàccoon mooy doon ki ñuy njëkk dagg loxoom ci lislaam ok kon bàyyi leen bu borom daraja sàccee wala mu luubal ñu négocier ko bu bor doomu baa doolo sàccee wala mu def nangam ñu teg ko ci yoon c'est pas mhm. moo tax yàlla ne wala yaqusukum bihima ra'fatun mooy aaya boobu. bu ngeen leen di door téeméeri yar yi yàlla mu ne amul émotion amul ñewent amul doomu diw la wala sama xarit la ak yaayam la xaaral ma xooli sama nangam ak nangam waru ci am. ok loi la nañ ko appliqué. ok yaa ngi dégg. wala yashhad azaabahum wala yashhad azaabahum taifatun yàlla mu ne te buñ leen di door téeméeri yar yooyu nañ leen yóbbu place de l'indépendance moom laa la waxoon. déedéet ko mooy fu siiw. fu siiw ca place de l'indépendance nga xam la ñëpp dañ fay jaar. imaam foofu ñëpp fay yomb de. waaw loolu la islam bëgg lan la ñuy def ñu ne diw ak diw moo njaalo ñoom la ñuy dóor fii téeméeri at xam nga nee naa la dañ dóor yi dóor yi islam nee na bul yàq nasaf mais bul yàq parce que yàq taxul ngay dóor nekkul ay dóor pour torturer du pour torturer da ngay dóor pour yar voilà pour avertir bi nga koy yóbbu place l'indépendance ñu ne lu xew ñu ne diw ak diw ñoo njaalo ñoom la ñuy dóor fii imam képp ku ko seetaan xaw ma fan mais ngay njaalo meeru doon fii kon da nga koy teg en dañ koy def en direct ñëpp ko gis du yow mais ñeneen ñi buñ ko defati parce que day yàqu société ak soññeel la ak soññeel la subhanallah ak ñaaxeel la merci beaucoup tax yàlla mu ni wal yashhad asabuhuma taifatun min al muminin gis nga ko naa am groupe bu jullit ñoo xam ne dañuy ñëw toog di xool biñ leen di sanction léegi le euh, ki njaalo naka nañu xamee njaalo cest à ko xam nga euh, da nga wax ne yoon saa sala ki mu rajam euh, bon ñu nu ñu daa ko ñu rajam ma dañu ñëw autosaisir u hmm. ñu yoon saa sala ñun danoo njaalo man maa ko def waaw maa ko def waaw mais mais yàlla nee na ku njaalo na doo téeméer yoon mais ku nit njaalo te yëguñu tiñu moom léegi nu muy def mu ngi ñëw xam nga def ci am loo xam ne sax même boo ko xamee sax ne moo ko def waaw ji yàlla dafa fonk doomu adama dafa suturaal nit mhm. yàlla bëggul teg doomu adama gàcce yàlla bëggul weer nit yaa mam Hmm. nee naa la yónnent bi kenn la àtte te kooko waxool boppam ñëw. ci islam yëpp ci l'islam yëpp jamono yónnent bi. ok à yooyu. njaaloo nga fa mais amuñ kenn koo xam ne kii gis nañ ko parce que yàlla dafa sàng doomu aadama sutura imam daf ne alxuraan daf ne su fekkee ne pour mu doon njaaloo imam da ngay jógee Jacques Mbao ma jógee Tëngéej Fadel Gueye jógee <coughs> golf waaw Ibrahima fay jógee ñaari tali mhm. ñu ñun ñeent te yëgoowuñ ñooy waaxu di ñëw ba fekk leen ñoom ñaar ñu nga ca imam imam loolu mooy njaaloo imam loolu fan la am fan lay am ah, loolu moom xanaa ko sàggan dëgg-dëgg ah loolu ma jaaxal di fan lay am nga xamante ne gaa yi bu ni bu ni bu ni sim da di waaw waaw waaw léegi nag kon yoolu kon loolu fan la mais mm-hmm. yu ma xam nga yàlla xam ne ne am na mm-hmm. mais sàng nit sutura ak fonk doomu aadama moo tax yàlla maanaam moo tax yàlla jafeel ko xam nga loolu bu fekkee am na kenn du gis ko njaaloo yonent bi kenn la àtte dama ne la moo ñëw wax ko ne ko njaalo na pour nga xam. d'accord mais nag loolu yëpp bu dajaloo jamono boo xamee ne dañ koy def imam xoolal ci digg mbooloo ma lañ lay dooree ci digg mbooloo ma lañ lay dooree. te loolu mooy asab dunya bi dafa am asab axira boobu yoruñ ko. sanction yi àdduna bi mooy bii ma la wax mais bu àllaaxira moom yàllaa ko yor. donc les sanctions terrestres. sanctions terrestres yi. waaw ko yor bu neexee yàlla jégal ko bu neexee yàlla bëggal ko ba mu yor doomu adama newu ci. Ah. mais li ñu war ñun ahlu sharia ci suñu àdduna bi mooy àtte bi mooy loolu. mais oustaz balaa ñu avancé. Mhm. léegi ku njaalo moom xam na ne njaalo na. waaw te kenn fekkewu ko. mu laqatu euh, bàyyi mu sedd. oui après génn dox dox kooku digganteem ak boromam la yaay imam. ok su yónnee wu ci. Hmm. digganteem ak boromam la xam nga alquran. Euh, mos na islam alquran dafa bëgg maanaam bu ñu ko doon jëfandikoo imam lu bon mën na fi tasaaroo mais xoolal du siiw yàlla dafa fonk doomu aadama. Hmm. dafa fonko doomu aadama Omar ibn al-Khattab moo say fek ay nit ñuy nan sangara jëndee seen whisky fële. ñëw mhm. dugg ci seen biir kër tey seen buntu di nan di laxal di laxal. gaay yi ñëw waar leen gaay yi tëb miir bi ñëw fekk leen ñu ngi ñu ngi nan mais ben way ci ñu doon nan mo leen jangal bobu yalla def na la tadkhulu buyota eh. min min man legi man leen li man bu ngeen di dugg ci kër bu leen jaar ci mire leen ci buntu bi la leen wax. Omar oh, dafa mujj bàyyi ko ne mais waa ji wax na dëgg parce que ni ko jàppee légalul léeg-léeg imam nit def dara na nga ko jàppee mooy tax amoo droit a ko. Ah, maanaam nit ku làqatu bay mandi ma ak. mandi nekk biir këram jënd ay viskim toog ci biir néegam. nga jaar ci miir ba tëb ñëw ne ko da ngay naan islam nee na eh yaa ko ah, que moom moom mu ngi mooy. mais làqutu ji na dem na làqutu ji ci bëti. mooy gi moom baaxul. waaw mooy ko comme que làqutu na. amuloo droit jàpp ko weer ko ci mbedd bi dama ne la nit bëri na lu muy def am na noo ko jàppee imam yow mi ko jàpp yaa def tort malgré que la ko jàppee moo ko def. ok jàppin dafa am imam jàppin dafa am. Hmm. islam dafa respecté doomu aadama ba ni nga koy jàppee dafa xool nu mu koy seetee. jàppin dafa am yaay ma. <coughs> yaa ngi dégg. Mhm. moo tax mu ni. Mhm. Euh, azani la yankihu ila zaniya ay bi imam ba léegi mooy continuer yonent bi ca Médine la wàccoon. ok Médine. xam nga jigéen ñi doon jàll nu ñuy def. Hmm. seen seen seen buntu néegi ci li ñuy bind ne fii njaalookat fi nekk. jërëjëf di publicité seen bopp waaw. comme ni gars yi def ah, rek waaw. xam nga loolu am na loolu. ah mu ngi noonu de yow de yaa amoon. Ah. bind sa biir nekk wane ni fii jigéen ñi jaay seen bopp ñoo fi nekk. amoon tamit yent bi. amoon na ci jamono ay bi ma lay wax nii ci looloo koy wàcc sababu nusul ay bi laa lay wax nii. bismillah. da nga est-ce que tu as vu. Mm-hmm. azani la yankihu ila zaniyatan aw mushrika ay boobu. ci Médine la wàcc ci gannaaw boo xamee ni jigéen jigéen ñi dañuy bind seeni i seen néeg yi wane ne ñoom jigéen ñuy jaay seen bopp lañ. pour dëgg sànq. góor gu sàgg góor gu sàggan da ñëw rek dugg góor gu sàggan da ngay ñëw rek dugg yaay ma léegi nag am ñu àndoon ak yónnent bi nekkoon ay saxaaba gëm yàlla biñ dugg see Médine ñu ne yónnent bi dañuy dem takk ci jigéen ñooñu. Mhm. Ah. yónnent bi ne leen déedéet azani azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika jigéenu njaalokat njaalokat bu góor a koy takk wala ku bokk maanaam léegi wala ab yéefiru bokkaale yàlla. maanaam ku baax daal du ko takk. ku baax du ko takk voilà jigéenu njaalokat góor ku baax du ko takk parce que alxuraan ay couple la wut imam ay couple. Ah. alxuraan dafa def ay couple. day sóoraale njaboot gi day sóoraale njaboot gi. ok c'est important merci beaucoup day wut ay ay couple. mu ne azani njaalokat bu góor laa yéen kii du denc ila zaniyatan lu dul njaalokat bu jigéen aw musrikatan wala jigéen ju bokkaale yàlla. wa zaniyatu njaalokat bu jigéen laa yan kii xuxaa du ko denc ila zani lu dul njaalokat bu góor aw mushrik wala ko bokkal yàlla war couple la lan la ñu teg lan la ñu teg wa xurima dalika alal muminin yàlla mu ne ñooñu xañ naa ko ñi gëm yàlla te yéen da ngeen gëm yàlla bu leen takk ñooñu hmm. maanaam imam bu la déggee hmm. mooy njaalokat bu jigéen bi ko moom sàggan na bay njaalo waaw mooy ku sàggan ne mel ni moom rek mais moo koy moo koy lijjanti très bien imam am na yoo xam ne buñ jógee di wuti di jigéen ñi xam nañ fañ jëm waaw. mooy gars yi bu ñu bëggee sim nii. xam nañ fañ jëm. ok xam nañ foo xam ne bu ñu fa demee rek am li bëgg. parce que ñoom loolu leen tax a jóg ñele it loolu leen fa tax a toog. xanaa xamoo loolu imam ok déet xaw ma kay. <laughs>